dama ko lire ci PSE bu président Macky Sall ay en tout cas encadrer le secteur informel booster le secteur euh, privé le secteur euh, le tourisme religieux pardon et yooyu yëpp dama ko gis fii mu mel ne en tout cas dafa mel ne dañoo copier photocopie en tout cas PSE bis laa gis ci lii nga xam ne moom pratiquement xaw ma fooy jaar ba wax loo xam ne lii génn na loo xam ne nekkul ci PSE parce que man bi ma liiree seen programme bi pratiquement tous les points yi ma gis yëpp loolu laa gisaat foofu un de deux mooy lan mooy sa diggante ak Ousmane Sonko parce que là aussi il y un problème parce que <clears throat> pour certains ils disent que Bougane kenn du ko jiite soo nekkee ci kanamam mu randu moom pour nekk ci kanam c'est normal aussi da a jiitu ci a euh, pas moi qui l'ai dit man li ma lay laaj mooy est-ce que vous avez des problèmes crypto personnels wala une fois dans la société di nga rencontrer foo xam ne c'est hors du champ politique ngeen am ay jafe-jafe wala yu demee naan parce que Sonko moom boolewoo ko sa programme naturellement peut-être moom it boolewu la ci programme c'est je sais yow lan moo tax yéen ñaar ngeen nekk ay jeunes nekk ci terrain bi pratiquement sax seen programme yi am na tuuti lu mu xaw a similaire mais mun leen ànd est-ce que ci Bougane la wala ci Sonko la. déedéet euh, Maodo euh, damay ci euh, similitude yi nga wax ne dafa nekk ci programme gëm sa bopp ak PSE moi je trouve personnellement que le PSE est un excellent programme ci tëggin wi maintenant ci doxalin wi bu ko ay cuune yore ça donne ce que ça donne boo bëggee mën nañ ci ñëw point par point le tourisme religieux ginnaaw Makka jàpp naa ne Sénégal rek wala boog néew na ci réew yoo xam ne di nga am ndajem diine buy dajale ñeent ba juróomi million ci doomu aadama Makka gi mu am dañu ci dañu dem ba créer ministère boo xam ne dañu ko dénk xaaj xam nga si dara muy générer plus de 400 milliards jëm ci économie bu Arabie Saoudia alors ñun bu ñu amee lu mel noonu est-ce que jotul ñi yore réew mi daje ak kilifa diine yi gën ko organiser ba mu mën a gën a jural njariñ Sénégal jàpp naa ne lu war a mun a nekk la rawatina nag bi nga xamee ne réew mi suñu borom wàcceel nañu ay mag ñu baax ñoo xam ne tey jii dañu leen di roy fu nekk ci àdduna ma gëm loolu beneen bi ci des li nga wax mooy ci wàllu informel euh, Maodo politique biy développé réew Europe mënul nekk même politique bu ñuy calqué développé ci réew développé ci suñu réew yi xam nga lu tax ñun 92 pour cent ci suñu économie ci informel la nekk maanaam koo xam ne day taaba taaba alors que ñële c'est le contraire quatre-vingt-quinze pour cent de formel la ñu nekk donc ñun li nekk suñu doole duñu ko war a jël comme faiblesse dañ ko war a organiser et mooy suma gëm-gëm organisation boobu dafay jaar ci gëm gëmloo nit ñi d'abord ne leen réew mi bu baaxee ñoom dañu ci am part de responsabilité moo tax ci biir programme bi ñu tëgg dañu wax ne mais lu tax maçon bi menuisier bi mécanisien bi du am pension à la ni ko fonctionnaire bi amee fonctionnaire bi day cotiser pour am ko yéen ñi ci privé bi dangeen di cotiser am pension à la retraite waaw léegi lu tax menuisier bi maçon bi mécanicien bi baykat bi wala sàmmkat bi wala euh, nappkat bi waruñu leen organiser à travers des polices d'assurance pour que ñoom également ñu mën a am la possibilité di am pension retraite tey da ngay gis pas bu am quinze ans di liggéey mais parce que amul dara lu nekk ci ginnaaw mais bu ko wóorul ne am na pension retraite boo ko ni woon da ngay cotiser mille francs par weer wala 10 mille francs par weer mais loolu mécanicien bi mën na ko loolu menuisier bi mën na ko seen njaboot sa jabar sa soxna bu feebaree nga faj ko yow yaa ngi koy def Mansour mu ngi koy def Edouard mu ngi koy def waaw xaalis bi ngeen koy defee seen xaalis la yéen da ngeen koy cotiser seen patron yi tamit cotiser leen. waaw léegi loolu bu ñu ko defee à travers ce qu'on appelle une micro assurance jaarale ko ci informel bi commerçant bi menuisier bi maçon bi mécanicien bi mais ñoom yaakaaruloo ne bu ëllëgee dinañu mën a faj seen ay doom gis nga Maodo ñii ñu jiite dañuy dundee nelaw kuy dundee nelaw du bëgg nit ku yeew et loolu moo gën a doon suma problème man ak ñoom parce que man li ma intéressé mooy jafe-jafe yi askan wi dund may dox di dem fu nekk ci Sénégal di leen gis di waxtaan ak ñoom naka lañ mun a def ba saafara tawat yooyu ñu nekke xam naa ne loolu du problème mu ñii ñu jiite parce que li leen intéressé mooy naka lañ mën a def ba defaru ci alalu réew mi comme man yàlla dimbali na ma am na lu mu ma dénkandi jàpp naa ne war naa taxaw pour suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu sët yiy ñëw ñu mun a am avenir bu gën ci suñu bos beneen question bi nga xam ne yaa ngi koy wax euh, man Bougane awma problème ak kenn par contre li ngeen bëgg gëmloo ko nit ñi ne benn opposition moo am Sénégal man gëwuma loolu aussi simple. non on n'a pas cru ça. ma ne ma man gëwuma ne benn opposition moo war a nekk Sénégal pour man jàpp naa ne. ku nekk mën nga taxaw bëgg sa dënn comme tu dis jàpp ne bëgg nga askan wi ñooy tànn ku nekk am nga sañ-sañu taxaw ne réew mi nii lañu koy doxale ku nekk am nga orientation boo am gis-gis boo am jàpp ma ne ñépp dañu war a booloo mais je dis sur des questions de principe sur des luttes politiques effectivement boo doole yi dañ ko war a boole mu doon benn maintenant nag ñàkk déggoo ci orientation mun naa am mais dama la bëgg wax ne man Maodo du ma politicien professionnel élection législative yii passé gëm sa bopp amu ci list élection législative yii passé gëm sa bopp amu ci candidat mais pourtant dañu battre campagne ne woteel leen coalition yi nekk ci opposition bi coalition yooyu mais leader yi nekk ci opposition bi yëpp seen njariñ ma nga ca jàpp naa ne tey contribuer nañu ñun ci li indi tembo bi am au niveau de l'Assemblée nationale et su doon sama sago ñun opposition bi dañu doon ëppale ay ndaw au niveau de l'hémicycle ba mën a jàkkaarloo ak Macky Sall ba li ñu bëgg jubbanti réew mi ñu jubbanti ko ci ni ñu ko bëggee parce que jàpp naa ne Macky Sall nekkatul fas woo xam ne mun naa yóbbu Sénégal fa mu jëm lii rek mooy taxawaay bi sëñ Maodo. Mhm. mais yaakaaruma ci àdduna lu ma yéene doomu aadama yàlla na dal ci man ak suma njaboot. mais un man nga topp ci gannaaw Sonko. mais loolu c'est juste une question. mun naa topp ci ginnaawam comme mun na topp sama ginnaaw <laughs> te man li ma jàpp mooy incha allah bu ñu demee 2024 hmm. ina incha allah danañu topp sama ginnaaw <laughs> D'accord. Inch'Allah. Alors ñu jox léegi euh, euh, la parole à Serigne Saliou Gueye avant ñuy ñëw ci euh, Mansour Sow Serigne